ñaanal yàlla euh, ci li nga xam ne moo ne ci kanamam ak conseiller yëpp muy conseiller diplomatique bi muy conseil technique yi muy euh, conseil spéciaux yi mais surtout conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil économique social et environnemental nga xam ne téeméer ak ñaar fukk lañu situation bi moo tax mënuma nuyu ku ci ne waaye ku ci ne maa ngi lay gërëm di la sant ndax ku ci ne indi sa contribution ci diir bi nga xam ne nekk nañ fi liggéeyandoo fii ci conseil économique social et environnemental ngeen xam ne conseil bi ku nekk ngi fi baykat yaa ngi fi nappkat yaa ngi fi sàmmkat yaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi docteur yaa ngi fi ingénieur yaa ngi fi avocat yaa ngi fi lim du jeex macha allah Sénégal su ndaw la te ku ci nekk yaa ngi indi contribution contribution yooyu nag tënk nañ ko ci ay rapport yu am solo ndax nag li ñu war a jàpp mooy conseil économique social environnemental dafa di institution bu am solo ci sunu réew ndax action balaa nga koy def da koy xalaat kon kii xalaat ak bërëb bi nga xam ne bii dajale na doomu Sénégal yëpp kon lu màccee foofu rek war nañ koo xool bu baax boole ko ci nit ñuy liggéeyee bu ko defee liggéey wi gën a rafet kon ñooñu gërëm naa leen euh, sant naa leen bu baax a baax a baax bëri na nag lu ñu fi waxtaane sant aussi ñi nga xam ne ñëw nañu euh, ba fekkee Euh, maanaam action yi muy ministre yi muy acteurs yi nga xam ne sax nekkuñ ci ministère yi mu jàpp na nañu ne par exemple ba ñuy def euh, sunu waxtaan wi sur le civisme ñu mel ni marchand ambulant yi ñëw nañu fi ba ñu waxtaan ak ñoom réew mi li mu laaj mooy aussi ku ci ne nga dugal sax xalaat voilà ci ni muy doxee du rek ki nga xam ne moo jàng waaye ñi nga xam ne ñi aussi ña ngay liggéey am nañu expérience kon loolu yëpp moo dajaloo fii ci conseil bi kon conseil économique social et environnemental dafa di lu ama am solo euh, te war fee nekk ba faaw kooku it euh, bëggoon naa euh, vraiment wax ko ah li nga xam ne nag mooy li ci des mooy fexe ba liggéey woowu it aussi mën a continuer bu ko defee continuer mën a jàngat ci expérience bi nga xam ne moo toog fii ci conseil économique social et environnemental kon booba ba it depuis huit ans voilà ci position yu bëri ñu ngi servir état avant nag am nañu carrière internationale carrière nationale loolu xale yi xam ne aussi euh, noonu la àddina da ngay da ngay da ngay ñun jot nañ def nos exercices euh, li ñu ci mënoon a def def nañu ko ak engagement ak transparence ak probité kooku dañu mës a jiital ci liggéey woo xam ne moom la ñuy def ak fu ñu ti dem voilà fu ñu mën a dem parce que yàgg na noo liggéey a ah, ba ñu fay jógee it gërëm nañ ñu sant ñu ah, it def nañ fi naka ni noonu àddina nag day continuer li ma ci mën a wax mooy sama liggéey ci Sénégal ak liggéeyal Sénégal ah danaa ko continuer yal na yéex ba keroog ba fiy jóge ndax nag loolu laa ameel suma réew loolu mooy li nga xam ne moom laa ameel suma réew mooy ak fu ma mun a ne muy poste pas post mooy ma liggéeyal sama réew ba Sénégal ni ñu ko xamee ci pays boo xam ne li tubaab naan pays avant-gardiste ci démocratie maanaam ñu ràññee ñu ci wàll démocratie ràññee ñu te loolu bu yàgg ba tey foo wax Sénégal vraiment nit ñi dinañ taxaw déglu loolu nag dinañ ci continuer dugal suñu loxo ba suñu way bu rafet boobu continuer voilà ñu continuer aussi jàppale suñu ndaw ñi kooku bëggoon naa profiter ci occasion bi wax ko ndax am na loo xam ne lii ñun ñëpp tiis la ci ñun en tant que yaay en tant que responsable sunu xale yi nga xam ne ñooy ñu koy waxee mbëkk gaal gi loolu it ci réew mu bëgg a avancé war nañ cee jóg bu baax a baax a baax gën a jàppale sunu xale yi jàppale ndaw yi kañ leen ñoom it ba ñu xam ne seen avenir fii ci Sénégal la nekk ñoom ñu bañ a toog rek participer bu ñu amee lu ñuy wax it ñu wax ko loolu yi organiser wu mën a liggéey ba nga xam ne bii ëllëg ak si ñoom ñi nga xam ne li ñuy séntu ci ñoom mooy ñu nangu lii ñu doon def ñoom it ba mën a jëmale Sénégal kanam loolu mën a am kon ginnaaw bi ñu jaalee famille yi ñi fi jóge bokk ak ñoom tiis bu méttee méttee métti bi ndax nag chance rek mooy tax sa doom bañ cee bopp ndax boo juddu woon ci famille yooyu ah mën na doon mënoon naa am muy sa doom moo des ci gaal yi kon amul kenn koo xam ne kii solidarité woo solidarité woo ak famille yu ñi nga xam ne ñooñu lañ fi jóge kon vraiment ñu ngi leen di jaal di gën a kañ suñu jeunes yi liggéey ak la jeunesse wax leen ne L'avenir, leur avenir est ici, au Sénégal. Leur avenir est ici, en Afrique. ne leen mën a Toujours, nous ñoom expérience, bu ndaw bi nga xam ne am ko ñu partagé avec ñoom mobiliser leen ba nga xam ne bii dinañu tekki fii ci seen réew kon loolu la ñu bëggoon a wax encore une fois gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp yéen aussi presse bi vraiment euh, amuñu seen fay ndax d'abord seen patience ndax xam ngeen heure Sénégal toujours waaye toujours da ngeen di patient te lépp lu ñuy liggéey fii bu ko sénégalais yi xamee ci seen loxo la jaar yéen a ngi joué un rôle fondamental ci gindi askan bi wax leen di xew ci réew mi yéen ñu ngi leen di encouragé euh, ba nga xam ne bii seen liggéey di ngeen ci am satisfaction sénégalais yi aussi am satisfaction ci yéen ndax seen information doon information boo xam ne euh, dana leen yee dana leen jëmale kanam xam naa ne nag ku ci ne bën ngaa laaj question politique waaye daf dul béréb bi ndax république dañ koy séparer ak politique man loolu laa xam fii du ma wax politique fii ci béréb bi nga xam ne mooy conseil économique et social waaye ni ngeen ma xamee xam ngeen ne Aminata Touré dana wax ak yéen ci politique incha allah ci diir bu gàtt maa ngi leen di gërëm euh, di leen sant di ñaan yàlla aussi dàqal ñu fu gën a sori Covid 19 bi nga xam ne moo fi ne ba tey waaye chiffres yi di wàññeeku. mu dem a dem a dem ba jeex ci àddina bi jeex ci senegal maa ngi leen di gërëm wa